dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyando yéen i kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal laan ñu lu jëm ci wàllu dem bi ak dikk bi ci jaww ci diggante Sénégal ak i Union européenne ba léegi nii njaw ma ngi wéy di da su xambe ndax waaye Union européenne dañoo wax Sénégal ne leen sunu espace bu leen fi jaar bu leen fi teg seen tànk ndax woppi coronavirus yi nga xam ne jamono ji mooy jàbbaajo ngi ci réewum Sénégal te amul yenn matukaay yoo xam ne senegal daan na ko siy jël yéen i kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal laan ñu waaye fulla mooy jaay Dakar ni nga xam ne moom la ko waa Union européenne doxalee noonu la ko Sénégal doxalee daan na leen di wax ne leen yéen tim maanaam sunum réew bu leen fi wàcc bu leen fi teg seen tànk Boubacar Sèye mi nga xam ne moo jiite Horizon sans frontières daan nay ñaawlu bu baax a baax maanaam doxalin wi nga xam ne Union européenne jamono ji ma ngi koy doxalee yéen a kaay gi de la témoin mu xëy di ñu xamal la ñu guerre bi nga xam ne moo dox diggante Sénégal ak Union européenne ba léegi ni ma ngay wéyitale raam sañak ba la jëm te bu fa amee kër du baax yéen a kaay gi de les échos xëy ci Aliou Sall maire bu Guédiawaye rakku njiitu réew mi di président Macky Sall mi nga xam ne moo yóbbu Ahmed Aïdara ak Bougane Gueye Dany fa mbaxana doone benn ndax Ahmed Aïdara ci ab revue de presse dafa waxoon ne Aliou Sall dafa jaay filaawo yu géej waaye lu toll ci benn milliard loolee moo tax ñu yóbbu ko fa mbaxana doone benn Aliou Sall di laaj lu toll ci benn milliard yéen kay gi de Les xëy di ñu xamal naa li ñu jaaxal ci mbir mi mooy Ahmed Aïdara revue de presse rek la def waaye nag ñi nga xam ne ñoo bind article yi ñooñee lan moo tax topp leen yéen def na déclaration patrimoine bu yàgg-yàgg Sud Quotidien xëy di ñu xamal lan ñu lu soxal wàllum déclaration patrimoine bi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall daan na koy wax ci conseil des ministres maanaam mbir mi dafa mel ni dafa am lu ca làq ca ginnaaw Macky Sall nan la mën a toogee ay weer yu bëree bëri di jalgati li nga xam ne mooy loi bi moom ak ministre am defuñu déclaration patrimoine maanaam comme ni nga xam ne moom la leen ko loi bi santé toog ba mu neex ko muy wax ne nañu def déclaration patrimoine mbir moomee lu doy waar la maanaam jar na ab taxaw seetlu te moom Macky Sall ci boppam maanaam ma sangu te ba léegi sangagul ndax ni nga xam ne moom la ministre yi war a defee déclaration patrimoine moom tim ba mu prêter ci kanamu conseil constitutionnel waroon naa def déclaration patrimoine yéen kaay gi de la Tribune nee na mbir mi ñëpp la jaaxal ndax Macky Sall li gënoon a yomb mooy dossier yi nga xamante ni corps de contrôle yi daan nañu koy génne di ay rapport loolee la waroon a jébbal yoon bu ko defee askanu Sénégal xam dëgg gi fan la fare waaye mbirum déclaration patrimoine gii nga xam ne Macky Sall moo ngi ñoom li ñu jàpp mooy dafa bëgg a xuuxal ñi nga xam ne ay jege ñaaleem lañu te mu ne dañoo am ay ambition présidentielle yéen kay gii di réew mi quotidien moom mu xëy wax ne alalu askan wi yàgg nañ ko sàcc ci réew mi te ku ñëw rek la ngay wax mooy di nga jël ay matukaay ba wàllum ger gi wàññee ko fi gis nañ ko ci Abdou Diouf gis ko ci Abdoulaye Wade gis ko ci Macky Sall waaye nag amul kenn koo xam ne def na ci ay jéego yoo xam ne askanu Sénégal am nañ ci lu leen neex tojaange yi saa sunu xëyee muy gën di yokk waaye nag ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall dañuy def ay tojaange di def ay mbuxum teg si ñu leen di yokkal ay promotion yéen kay gii di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samb xëy nag def def ab taxaw seetlu ci lu jëm ci rapport yi nga xam ne inspection générale d'état daan na koy génne rapport 2016 ba 2020 journal bi nee na lan moo tax diir boobu yëpp ñu toog bañ a génn benn rapport référendum am na fi 2016 xanaa loolee moo tax maanaam rapport bi génnutoon législatif am na fi xanaa loolee moo taxoon rapport 2017 bi génnul parrainage am na fi xanaa loolee moo taxoon rapport bi génnul élection présidentielle am na fi 2019 moo taxoon xanaa rapport bi génnul yàlla doole jëpp moo ko yor ci ay loxooma yéenekaay gi xëy di ñu xamal lan ñu collectif ñoo ñoo bañ ak aar li ñu bokk préfet bu ndakaaru may ne leen tey jii ñu dox seen doxum ñaxto yéenekaay gi di source a xëy yóbbu ñu diwaanu Touba quartier Soura nee na benn borom kër bu tudd Moustapha Mbeng muy yóbbu doomam fa mbaxana doone benn la ko waral mooy doom ji dañoo sukkoon ñoom ñëpp di reer doom ji tuur reer bi reer bi nag ceebub keccax la woon moo tax baa ji yóbbu ko fa mbaxana doone benn tëj nañ ko ñetti weer yoo xamante ni du ko tëdd waaye amande nañ ko cinquante mille francs stade yéenekaay na Real Madrid jamono ji jël na championnat bi ginnaaw victoire bi nga xam ne am na ko niki démb match bi doon dox digganteem ak Villarreal jamono ji Barcelone daat nay la ji waaye nag Messi la mu xam ne nee na jamono ji jot na sëkk ñu daal di def ndëpp maanaam ci Barcelone daal di toog ci taabal waxante dëgg yéen kaay gi nee na Zidane ci wàllum football def na ci jaloore ci wàllum entraîneur def na ci jaloore joo xam ne dina yeex ni def ko ci wàllum football ci àdduna bi